ña nga ca xam ne ña ngay yëg la jullit yee yëg benn xew-xew bu metti bu dal jullit yi tey jii bokk yi ci mel ni réew mu ñuy wax New Zealand la benn waay fekk ay jullit yi julli àjjuma mu yor ak fetalam dóor ñi bañ daanu ba ne la mu delluwaat ci yeneen jumaa defar noona waaye ew waaye ndaw ñoom ña seen bakkan des kero bis boobee ci aljuma ja muy tey ji xam naa ne jamono du ko fàtte li tax ma ne keroog àdduna ak taarixu adduna du du ko fàtte mukk ci keroog lay mujj ñu koy waxante ba àdduna tukki waaye tey la xew loolu nag bokk yi soo dégloo ci àdduna bi ñi ko ñaawlu demee barewuñ noona te moo ne am na xew-xew bu ko xaw a niru boo xam ne ñañ ko defoon ci ñoom dañoo tooñoon tooñ gu bëri àdduna bépp àndandoo mel ni àdduna daa tukki waaye nag loolu tax jullit yi bàyyi jàkka yi du leen tax a bàyyi jumaa yi du leen tax di tudd yàlla ca kaw ew ndaw ñoom daaw bokk yi jullit yi ñoom ñëpp xam nañ ne dañuy faatu bés yàlla àtte leen euh, wóor na leen ne it ku ci teg tànkam fa mu ko war a teg bis bu faatu dikkee ak nu mu ko mën a fekk aljanna la jëm rawatina koo xam ne dugg na ci ñi wax ne ku ca bokk jullit yi mënees naa rafet yow njort muy koo xam ne dañ koo boom waaye bokk yi rawati ca koo xam ne daa bàyyi ay soxlaam bàyyi liggéeyam waaj ba jekk dem ca wuy ji wooteef suñu borom bam ne woon yaa ayuha alladina amanu ida nuudiya lissalaati min yowmi aljumaati fasaw ila dikrillahi wa daru lbaya ñu jëfandikoo ko yoo keroog la ñuy mujj gisante ak seen waa kër ci sayir ñu mat a ñee nga noone bokk yi loolu dafa joxaat jullit yi fit daf leen a joxaat jom wan leen ne liñ nekk am na ñum neexul ba lii nit ma a maroom ja moom ci ay pexe mënut a weesu faat ko waaye ñaata jullit ñoo nar a judduwaat ginnaaw bi jullit yu bari yu baree baree ba danañ gën a fees suuf si ndax moom bu fekkee siiw la bëgg duutu nekk kuy doxi soxlaam moom waaye dañuy ragal ñu àtte ko ni ñuy àttee àtte yu dëng yépp rek léeg-léeg nit faat taxaw fam ko faata waaye mbokk yi wax nañ ko ba tàyyi suñ koy wax dañ naan kiñ jàpp ne moo ko faat waaye ëllëg yàlla dana ko àtte saala saailun bi adabin waaqian lilkafirina laysa lahu daafiun min allahi di lmaarij taaruju almalaikatu walruxu ilayhi fi yowmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana buñ naan yàlla dana ko àtte am na ñoo xam dañ naan ah loolu ñëwagut te yàllaa xam yàllaa xam lépp moo wax loolu nee na am na ñu lay laaj ba xam ñi Euh, bu fekkee laajaguñ ko ba noppi ëllëg ñi def jëf ji mel nii nga xam ne bañ diine ak jullit yi rek a tax ñu def ko lu leen yàlla di teg yàlla ne bis dana ñëw boo xam ne day yàgg lool ci suñu dégg juróom fukki junniy at ci suñuy bés la benn bis di tolloo mu ne yonent bi jullit yi nag fas fasbir sabran jamila muñ leen rek naa innahum yarawnahu baidan wa narahu qariba sooy wax àllaaxira dañ naan dikk gu dikkagut léegi jàppe ko lu sori loo xam ne duñ ca mës a àgg mukk te nee na fi kanam suñu borom mi ngi nii mu jàkkaar lool kon boog rafetuñ njortu ci ne danañ ko àtte àtte ba ca war ndax ñooñu tooñuñ kenn su fekkee àddina bi daal siiw ñu ne lu way neex mën na koo jaamu lu way neex way way ñoom ñi nga xam ne yàlla daf leen a wax ne inna diina inda allahi al islaam ñu tànn ko wa man yabtagi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al xaasiriin ñu nangu ko ñoom bàyyi seeni soxla dem ñu fekk leen fa def leen nañ leen def nañu ko jàppe rek keroog ba ay bokk jàkkaarloo ku nekk yor gànnaay haadaani xasmaani ixtasamu fi rabbihim waaye la dal ña amut pas-pas neexut de fa alladina kafaru qutiat lahum siyaabun min naar qutiat lahum siyaabun min naarin yusabu min fawqi ruusihim alxamim yusharu bihi ma fi butunihim waljuluud wa lahum maqaamicu min xadiid rawati ca bokk yi weer wi mu amee weer wi nga xam ne yàlla mi bind moo wax ne bu ngeen bëggee wàññi at yaata weer la yàlla noppal na leen ci buñ la ko laajee ne fukki weer ak yaar la mu at waaye weer yëpp yemuñu nag am na ci yenti weer yoo xam ne moom ni ko lislaam fekk noonu la ko bàyyi yenti weer yooyu mooy weer wii wenn la ca weeru rajab weeru diggi weeru tabaski ak tamxarit weer yooyu bi lislaam ñëwagut it euh, ceddo ya dañ ko joxoon cër kenn dawu ca duuma doomam sax far waxaale wuñ dëkk ak dëkk waxaale wuñ réew ak réew bokk yi ci weeru wenn ci weer yooyu nga xam ne ay ngëneelam kenn xamul nu mu toll ci la waajooju xottee waru may suñu borom ji jàppewu ko dara weeru rajab mooy wan mooy weer wi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na xanaa yëgu leen ne yéen a ngi ci rajab ñu ne aha kay mu ne moo ne ci arba arbaatun xurum ci la bokk de ci alquran wax inna iddata shuhuri inda allahi isna ashara shahran fi kitabillah yowma xalaqa alsamawati wal arda minha أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم yéen jullit yi nangeen ko jox cër gaaw jaamu ca yàlla sëf ko ba mu fees dell ak jaamu yàlla mu yóbbaale leen ko ku ko ca mënut na téye boppam waaye rikk bu ca kenn def loo xam ne ëllëg si bi day matt baaraamam sànni defe ne kenn na ko def dara te kenn defu ko daal bokk ci weer la xewe weer woowu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam weeru suñu borooma suñu boroom moom lépp waaye soo déggee ñu ne yàlla moom nangam rek am na ab joxañ bu ca nekk dal na Shaabaan nag muy weer bi ci topp baraxlu sama we aw weerama moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ramadaan ma ma ca topp ñetteel leen moom xeet yépp ko bokk yàlla moom lépp waaye daf caa féetewoo rajab joxoñ ca ay joxañ yonent bi sallallahu alayhi ne moom Chaabaan moom daa bëgg rek ñu jox ko ko addiya bàyyee ko ko ñépp nangu nañ lu mu laaj ñu jox ko ko gënoon naa laaj lu ëpp weer muy ay bakkante dañ ko ko doon jox ak i alal bis aw nit jël nañ seen alal jëpp jox ko ñenn ñi amul alal ne ko suñuy bakkane ngi nii sax boo ko laajee ñu jox la ko kon séddewut ak xeet mi dara daal ne ramadan nag xeet bépp ko bokk xeet bi nag bokk yi li tax ma ne woon jullit yi yëpp seen bokk ñooñee ca lañ lañuy sore sore soree daanaka duñu fekkante ci jant sax daanaka dañ dugg ci bis ñoom ba bis ba sori lool ba suñu jant di bëgg ba seen jant di bëgg a sot ñu soog a dugg ci bis ba waaye teewul ñoo bokk fenn fu ñuy jëm bu ñuy julli dal ne moom sallallahu alayhi wa sallam ku weer ku woor ci rajab benn bés te yàlla rek tax yàlla warlul na ko ngërëmam yàlla dara waru ko de waaye garantil na ko ne da nga am sama ngërëm ngërëmul suñu borom nag ku ko am mooy ticket bi la yóbbu aljanna